tamit na nga ko wax avec respect euh, moo gën daal. Mhm. jërëjëf Ndeya voilà. awaan sa saaga yi moo waral mënuñu leen ko tegal ci ci kii bi mais boo duggee ci réseaux sociaux yi di ngeen ko gis. waaw dañ nekk ci jamono joo xam ne. je mhm. pense caaxaan sax waruñu. dëgg dañ nekk ci moment yoo xam ne foo sax waruñu. Mhm. dañ nekk ci moment yoo xam ne sénégalais yi dañu sonn. dañ nekk ci moment yoo xam ne les Sénégalais souffrent énormément dans ce pays. effectivement dañ nekk ci moment yoo xam ne les Sénégalais éprouvent d'énormes difficultés. Mmh. c'est difficile de s'exprimer actuellement sur certaines choses. Mmh. je pense que ak fi dëkk bi toll nii nous sommes tous engagés. Mm-hmm. muy c'est pas seulement les politiques wala ñun ñii di taxaw ci plateau yi mais les acteurs culturels. Mm-hmm. les acteurs qui sont aujourd'hui Euh, dans le milieu musical. Mhm. ñoom tamit war nañu wax parce que quoi qu'on puisse dire c'est des porteurs de voix. voilà suñu génnee ay album les Sénégalais l'écoutent quoi qu'on puisse dire. dañ mhm. leen di déglu. voilà aujourd'hui s'ils font leur promotion encore une fois dañuy def lu nekk c'est-à-dire à travers des publicités. Mhm. à travers des débats yoo xam ne ñu ngi koy def ci plateau yi. donc je pense que si le pays actuellement éprouve d'énormes difficultés. la première chose li nga xam ne war nañ ko def c'est d'abord de s'exprimer de parler à cette population effectivement il y une sortie boo xam ne Siteu defoon na ko mhm. mbër la ça fait polémique voilà limite-toi sur ton domaine sportif mhm. et que tout ce qui est engagement et détermination pour le développement de notre pays vraiment euh, ñun dinañ xam nan lañ koy gérer wee mhm. Wally ak Pape Diouf c'est des acteurs de la musique effectivement ils sont connus c'est des porteurs de voix am na mbooloo boo xam ne nekk na seen ginnaaw donc je pense que avant lii nii yëpp di xew il devrait d'abord s'exprimer mhm. euh, de la situation bi nga xam ne dëkk bi ñu ngi koy jànkonteel mhm. Gris Bordeaux une sortie hier concernant problème yi nga xam ne dëkk bi ñu ngi koy jànkonteel mhm. ce qui était une très bonne chose il a parlé ndax ndax saal wax na si mhm. wax na exactement problème yi nga xam ne dëkk bi ñu ngi koy jànkonteel en dehors de ñoom si lu ñu nekk war nañu di wax li xew ci biir réew mi. surtout loolu ça doit être un exemple pour encore tout acteur. le mais problème seen inter seen personnel rek moo tax concernant cette affaire là euh, Wali et Pape mhm. que c'était pas le moment. il oh, devrait y avoir une discussion encore une fois avec euh, le gérant de cette boîte là comme ça ñu toog waxtaan pour qu'on évite encore une fois euh, d'être dans ce genre de conflit mais dañuy voilà ñëwal koy mhm, wax mhm. encore une fois jaru ko woon maintenant nag milieu showbiz dafa nekk loo xam ne doy na waar. Mhm. ils avoir des choses pour le buzz parce que après ñoom ñooy toogaat ci plateau yi def comme si de rien n'était moo tax il faudra faire très attention encore une fois sur certaines choses bien vrai que nous avons vu une vidéo qui circule depuis je vais pas citer de nom de cet auteur là non Matar Diop Matar la euh, mhm. je vais pas citer son voilà. nom en une fois ay kaddu yoo xam ne c'est un peu déplacé mhm. après li mu wax dafa mel dañoo saisir li nga xam moom mooy Baaramundi ba tey dañ koo tëj dañ koo tëj voilà. scellé par l'huissier de la justice. voilà c'est ce qui a été c'est euh, mhm. li nga xam ne moom mooy buntu. Euh, euh, boîte boobu noonu après gis nañu vraiment publication concernant la soirée de Wali. déménagé na ko ci euh, beneen milieu. Mhm. est-ce qu'il ne devrait pas encore une fois commencer par fii nii alors que ñu bàyyi ba moment bi pour essayer d'arranger les choses. Mais, encore une fois voilà, voilà. les problèmes essentiels actuellement maa ngi la koy wax c'est la santé c'est la sécurité problème d'alimentation problème yi nga xam ne Sénégalais mais parfois parfois tamit day baax ñu ci ñëw di ci débat mais on est obligé dëgg amul nekk nekkuñ ci moment boobu moom ça c' est vrai parce que euh, réew mi dafa am boo xam ne injustice mi ngi fii loolu tam dañ koy àddu mais parfois tamit polémique bi nga xam ñoom ñu ngi koy def pour seen showbiz tamit day baax euh, ñu ciy débattre dañ si war a wax mais c' est pas le moment effectivement c' est pas le moment mhm. <laughs> lu ñuy jànkonteel fu mu nekk nii dafa doy waar trop dëgg la day di sax nga wax si parce que aujourd'hui am na ku lay seetaan koo xam ne bu mu xëyee ndekkiwul li muy añ amu ko pour mu reste c'est tout un problème. ñoom ñu ngi nekk di xëccoo il doit encore une fois nourrir sa famille. Mhm. fayal doomam école. ak fi weer bi toll nii. ak fi réew mi toll après ñu ñuy bëgg a di ñu euh, vraiment distraire ci ay problème c'est pas le moment pour ça. Mhm. focus sur l'essentiel. Mhm. nous nous vers des contextes très importants. nañu jéema a régler lii ba pare après ñu wax li nga xam ne moom mooy détails yi ni la mi ngi doon nag mu nekkoon ki nga xam ne mooy Pape Diouf ak euh, Wally Ballago Seck ñoom nag jamono ji ñu ngi ci euh, xëccoo bu metti waaye nag Wally euh, bàyyil na ko saal bi daal di tëgg foofu noonu ca Vogue <laughs> confirmé <laughs> voilà waaw kii na ko joué tul baaramundi léegi mu ngi joué bopp Mm-hmm. donc je pense que c' est des frères c' des citoyens. est ce que loolu tamit mënuñu woon njëkkee rek. waaw te bañ a créer loolu laa lay wax moo lay wax showbiz nag dafa doy waar milieu showbiz dafa doy waar trop. man vraiment euh, lu jarul polémique sax dañ koy polémique ce milieu je sais mm-hmm. comment ça se passe. Mm-hmm. il peut y euh, vraiment des clashs wala ay wax yoo xam ne aujourd'hui euh, c'est pour nit yi déggat leen encore une fois. mais c' est des très grands artistes Wally aujourd'hui quoi qu'on puisse dire il est connu dans le monde Pape Diouf tamit gars yi xam nañ ko donc yii nii daal mënoon nañ ko éviter maintenant nag ceux qui sont autour euh, de ces deux euh, artistes là je pense que polémique yi en général suy jugee foofu lay jugee mais gis nañ ne que à chaque fois suy amee ñoom ñooy toogaat encore une fois defaraat les choses donc vraiment que nañuy xool lu ñuy wax maamu doguma la sax doguma la sax mais ñi nga xam ne maanaam ñoom ñooy Euh, ñoom ñoo topp ci ginnaaw euh, artistes yi ñoom itamit nañu wax ak ñoom bu baax a baax ndax gis nañ bañ ne Pape Diouf day tëgg le 28 waaye tëgg le 28 foofu nañ ca baaraam di am na ci ñenn ñoo xam def nañ vidéo ne fii nii euh, diw moo fi yëngal diw moo fi def lii yooyu nañu war a ba yooyu la ñu war a ba parce que ñoom ñooy ànd ak ki nga xam moom mooy artiste bi am na leen loo xam ne ñoom ñoo ko war a defal image am mais bu dee da nga def vidéo naan diw mooy tëgg fii amul leneen kii mooy yëngal kii mooy def li loolu day nduru benn jaxase boo xam ne dafay am ci ñaari démb am na ku woote ku koy wax jéeri ngoone mi ngi naan euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw artistes yi bis bu artistes yi jubóowee dootuñ amatu la ñu yóbbu seen kër maanaam ñoom daal ñuy nekk ten en tension tension chaque jour moom moo leen di arranger voilà. Euh, mooy li ma lay wax rek. Mhm. peut-être que man milieu boobu noonu xaw naa si xam tuuti. encore mhm. une fois. Euh, mais mooy li ma lay wax milieu showbiz dafa nekk loo xam ne dafa doy waar tey jii artistes yi mun nañu bañ a yëg sax problème yi nga xam ne gars mu mhm. ngi koy jànkonteel seen biir il faut que mu def benn buum ci euh, réseau yi pour ñoom ñu koy soog a yëg mhm. moo tax ma ne la il faudra faire attention encore une fois mhm. euh, sur les personnes qui son aux alentours ci milieu yooyu noonu ci entourage yooyu noonu vraiment parce que remarqué nañ ko polémique bi ci foofu lay joué que maa ngi la koy wax deux ñoom mhm. ñooy toggaat ci même plateau kii naan kii c'est mon grand kii naan c'est mon frère donc je pense que il doit pas y avoir de problème sur ça encore voilà. une fois et que nañu delloo si waat xel yi sur l'essentiel moo gën a wóor euh, moo ëpp solo dafa mel l'émission tire à sa fin dama lay mhm. daal di bàyyi nga daal di tàggatoo waaw euh, le Sénégal démb Euh, gagné na Mauritanie ah ok fàttali na waaw waaw juste nii rek Sénégal gagné na démb Mauritanie. léegi mu ngi final 1 à 0 demi finale. Sénégal dinañu jouer ah, euh, demi finale. waaw incha dañu def finale sax. waaw <laughs> donc nous souhaitons euh, vraiment gaynde yi ñu dem finale indil ñu coupe boobu. amiin waay comme suñu gaynde yu mag yi nuñ ko defee woon encore une fois. donc euh, Ndeya di la ko wax rek euh, les rubriques sportives vont commencer à partir de lundi incha allah voilà, donc vous aurez toutes les informations concernant l'actualité après matinale sportive après matinale okay. bi donc je pense que euh, rubrique yi di ngeen koy amat encore une fois di am mbégte ak contentement d'avoir partagé ce plateau avec vous mhm. di jaajëfal les fidèles internautes de 313 digital gis nañu commentaires yi yëpp mhm. vraiment vous êtes vous étiez très animés aujourd'hui mm -hmm. continuez à la cloche de notification restez connectés surtout l'information continue sur 313 digital. merci beaucoup Mamour Ndeya. Uh-huh. di souhaiter un joyeux voilà. anniversaire à uh-huh. notre grande réalisatrice Bijou. Uh-huh. di ko souhaiter un joyeux anniversaire. vraiment euh, c'est une personne euh, d'une euh, très grande modestie. elle fait son travail dans l'ombre kenn du ko dégg ci donc je pense que nous qui sommes ici. nous devons tirer des exemples ci comportement bi nga xam ne. ñu koy am assidu. ku fi tardé sax mu woola foo nekk dal sa kaw mais mhm. toujours dans le cadre du travail mhm. su si paree nag après pare na si ñu ngi souhaitons encore une fois un anniversaire vraiment mhm. suñu borom euh, bàyyi ko fii bàyyi ko ci liggéey bi ba lépp lu muy séentu euh, ci milieu bii nii suñu